Bienvenue sur Salam Vision. leen nekk final tournoi de la paternité tournoi bi ASC Penc moo ko organisé mu nekk tournoi de quartier ñu sélectionné douze équipes yi bokk ci biir quartier bi tout ça pour euh, créer des liens quartier bi mais ASC Penc daaw bokkul woon nawetaan donc cette année ci bi ñu demee ak nawetaan ba pare accepté nekk parrain final. donc ñu koy remercier bu baax baax a baax au nom de donc ni invité aussi ñuy remercier aussi ses invités di remercier les parents des douze équipes ñi nga xam ne tey ñoo tax tournoi bi egsi fi parce que tournoi bi niñ koy organiser dañoo bañoon mu am ay violence ñoo tax benn équipe joxewul engagement te ñoo jël seen engagement joxe ko pour que équipe bi mën a. donc ñooñu aussi ñu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax. donc final bi dañ ko war a démarrer tout de suite parce que heure bi dafa dugal moo wax les deux équipes ñu jege si.

Merci beaucoup. Franc tolol voilà voilà vas-y. yéen ñaari finaliste yi. ay njaago lañ ñii dañoo dëgër bopp. waaye leen rek lañ bëgg xeexu njaago du jeex du dëgër bopp tam du bàyyi. mais bon ñun nous sommes des frères. su ma xoolee. nekk ay magu ji ñi nekk seen yaay donc suñu xeexee fii day ñaaw ay paa yu bàyyi seen nit yi ñëw seetaan si leen donc bëgg naa ngeen gën a am responsabilité arbitre bi nga xam ne moom lañ dénk micro central bi aujourd'hui ngeen respecté ko lu mu décidé rek ngeen xam ne moom parce que ñun dañuy juum yéen da ngeen di juum kon moom jàpp leen ne tey dina juum ci match donc ngeen da ngeen ma bëgg a def njaago ba

n'arrêtez pas. C'est là la remise des diplômes. Et, et, par rapport à l'état et la guerre, on appelle, on appelle les soignants, on appelle les soignants. ASC kon ASC bi mooy doon waaw ASC Penc aussi dafa defar maillot bi comme maillot bi président Ousmane Ngom si président Pape Sarr bu baax a baax a baax a baax. président Pape ASC Penc bu la neexee nga daal di ko mu gën a xool ñu xool.

Oh, do that. meilleur joueur Tabera mooy meilleur joueur Touba. une séance de photo wax nañu meilleur joueur. avec tous ces trophées qu'il a pris. après nga may ko bu ngeen yàgg. avec sa qualité pour serrer les buts. meilleur gardien de but. Alfred Keita. meilleur coach. sera récupéré par, euh, comment dirais-je, euh, par Pablo Lorenzo, qui fait le dribble. Est-ce qu'à présent, il est avec le ballon Oui, c'est une faute. Ça a dégagé le ballon. Alors pour le gardien, ça a tourné le ballon. Ah, le meilleur ballon. Mais il a dégagé l'autre. waaye su baax sa ndox yi ngay sànni si terrain bi waaye su baax yi ngay sànni si terrain bi ba tey ñu ngi si Massi ballon pour Ado qui refait la passe de Bébédère qui repère encore le ballon ballon pour Épée ballon pour Moussa Diop qui fait la passe sur Ado tête de Bébédère récupération de Moussa Diop qui Get back. Et Abidjan qui se sent pour, euh, pour 15 ans après Abidjan, c'est un très bon attaquant. Thank you.

Balotoum Junior dañu tabal Cheikh Sidé moo contrôlé passe Moussa Diop tegalaat mu xaaj passe mu faar ko. Trois pièces. trois pièces la mooy loisir yi ay CPT dara soxla président Pape Sabe moom moo koy équipe bi au nom de l'ASC donc kii wax la da ngay sëgg Orange Fall ñëwagul de ñëwagul de ah bu soog a ça, quoi. Tamam, her tarafı sor. Buna mı gayet? Var. waaw. asalaamaaleykum donc ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi teew di encourager joueurs yi di leen féliciter donc euh, di ñaan yàlla ay futurs professionnels soqeekoo seen biir donc ñu ngi leen di encourager match bi c'était très serré bien disputé mais yàlla may na leen ci ndam donc di gërëm aussi mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew comme ku ci mel ni tonton Pierre nii xam ngeen ko doyen bu baax di kilifa ci fii ci jàngu bi dëkk Saint-Jean donc di suñu kilifa suñu nijaay ñu invité woon ko mu ñëw dafa baaxoon ay mag ñu mel nii teew parce que exemple la te xamoon naa ni mënoon nañu jouer ci loolu pour calme mën a am ci biir match bi heureusement ba match bi def ngeen ko avec discipline avec beaucoup de ferveur parce donc gis naa ne ñëpp vous êtes taxaw nii euh, nga xam ne wax nañ ko mu jege si bés bu mu Abbé Félix ñu ngi lay gërëm di nuyu waa kër gi ñu dalal fii aussi ñoom Serge yaayam ak CC donc di remercier tout le monde euh, équipe Ndiago yi comme ko waxee di félicité aussi équipe bi rek te ñeer si yéen gëmoon naa ne biir match bi ngeen leen naroon dóore quoi. en tout maa ngi leen di félicité aussi muy ndam ngeen jël meilleur buteur meilleur joueur donc peut-être même meilleur gardien yéen a ko waroon jël parce que seen gardien encaissé wul suma juumul voilà donc euh, mais fair play moo tax ñu jox que les meilleurs donc loolu tam ngeen comprendre ko noonu donc c'est ça le sport l'essentiel c'était qu'on soit dans la joie di remercier ñi nga xam ne je les appelle mes amazones ñu ngi jege ba parcelle fépp dañ may accompagner donc maa ngi leen di gërëm ñu ngi toog nee ci ginnaaw di leen san avec mais sœurs de l'amicale Saint-Benoît nga xam ne moom la ñu am suñu amicale la suñu cosaan la suñu dund la sax laay wax parce que lu ñu fi defut lu ñu ko def ailleurs donc di gërëm yéen jeunes yëpp yi nga xam ne vous êtes très très engagés en ce ci amicale bi ak mbirum amicale bi jaare ko ci fête patronale bi ngeen a mujj def fête patronale boo xam ne sax mën na concurrencer fête patronale yeneeni paroisse parce que c'était une fête patronale grandeur nature di remercier tous les acteurs donc mbir noonu lay doxee da ngeen koy commencer fii ci quartier bi mu màgg jusqu'à des échelles yoo xam ne kenn du ko mën a téye donc merci et mes encouragements à tous les jeunes ñi nga xam ne bëgg nañ def seen bopp ay sportifs de haut niveau di leen ñaan ñu respecter li ñuy def parce que sport dañu koy respecter sport dafa fiir donc am na yoo xam ne aussi mënoo leen ci nekk bëgg nekk des sportifs de haut niveau soo bëggee nekk sportif da ngay xam sa bopp boo bëggee nekk intellectuel un grand bureaucrate wala un médecin da xam sa bopp di nga xam lu ci nekk rek da nga koy jox li nga xam ne moom la laaj soo bëggee sport day am yu bëri yoo xam ne da nga koy bàyyi donc je vous invite j'ai vu des talents vraiment de purs talents parmi vous donc je vous invite à faire des sacrifices pour aller de l'avant fii ku fi deful sacrifice dem fenn donc maa ngi leen di ñaax ngeen gën a sacrifié wu gën a góor góorgóorlu parce que je sens que d'ici quelques années fii yëpp dana soppeeku incha allah te yéen ñi di ngeen nekk ay acteurs yu déterminant ci coppite boobu. foofu noonu foofu noonu sax ma mama am lu ndaw loo xam dama la ko ciy laaj. fara ndaw sa diggante ak ndaw ñi sa diggante ak dëkkandoo yi mais sa diggante ak ñi nga xamante ni boo leen woowee ñu ñëw boo leen woowu ñu ñëw lan nga leen lemal ba tax yow saa boo xewlee rek ñoom ñëpp automatiquement ñoom ñooy télémobiliser seen bopp ñëwal seen bopp te yow. doo yëkkati sa kàddu boobu woo leen sa diggante ak ñoom secret bi lan la. c'est que dafa am adage bu buy ne su dee li ngay li ngay góob neexu la na nga changer li ngay ji est-ce comprendre nga. bu dee li ngay góob neexu la changer li ngay ji. <laughs> donc fii je crois que ñi fi nekk ñëpp li ma leen ji rek moom lañ ma mën a delloo. moo tax c'est une relation naturelle. Mm-hmm. relation boo xam ne amul tricher parce que man du ma tricher ak ñoom te yaakaar naa ne ñoom mënuñu tricher ak man donc ni ñu nekkee samay rek noonu laa nekkee seen mag te noonu lañ ma jàppee ma jàppee leen lu ko raw macha allah dañee kàddu yi dañee yi ak loo leen di dénk alors di leen ñaaxaat rek ñu gën a góorgóorlu parce que man ñaan naa yàlla di si quelques années ñu am fii ay professionnels alors les lutteurs étaient là tout à l'heure ci ñoom nee naa leen rendez-vous dans trois ans au moins kenn ci ñoom nekk roi des arènes trois ans lañ may gars ñu faxas leen ñoom ñëpp. yéen ñi si quelques années ñaan naa yàlla gis ci un Tabera ou quelqu'un d'autre parmi vous. yéen a ngi ciy très ñu ngi koy ñaan yàlla. ñu ngi ciy dox te lépp li nga xam ne mën nañ ko aussi dinañ ko ci jéem. yàlla nag moo mën bu ko yàlla tuddee dana nekk incha allah. macha